ñoo ko di chef de spectateur de Baol Times TV donc tey comme ni ko xamee au point du Baol léegi ñu toll ci huitième édition bi te loolu continuer di nga xamante ne ñooy waa organisation bi fan lañ toll fi mu ne nii ki ñu taxawal ni euh, moo nekk sant Lamine Gueye euh, salaamaaleykum. Euh, sant nekk ci huitième édition bi ko waajal mu war a am le 18 février waaw euh, ñu ngi ci daanaka mën naa wax ne parce que euh, on est ren huitième édition ñu def ci sept trophées sept trophées première fois ñu proposé leen automatiquement dañoo ñëw loolu pare comme ku ñuy wax ak donc ñooñu ñëw ñëw automatiquement yokk suñu parrainage élèves yi nekk ci bibliothèque bi ndax nekkoon extérieur wala ñi nga xam ne ñoo Dakar yi ñu bari dans maanaam bu ëpp ci li ñuy def sa ñoom na ko kon nag yaakaar naa ne xam na ay innovation yu bees am innovation parce que trois premiers ci yoo xamante ñëpp ay doomu bawal lañ kon donc seede bawal ci gañ en plus tamit gratuit moo gañ mais ñu bëgg a xam ci biir loolu maanaam jafe-jafe yi parce que du nekk yéen da ngeen jox ko trophée ko ngeen jox loo xam ne am bala ñu am. waaw ba léegi loolu ñu ngi ci suñu commande trophée ak suñu partenaire bi euh, loolu tegu na euh, parrain bu ñu réagir ci liñ leen jox ci seen charge bi donc dañ mën a déroulé comme ni ko doon déroulé am na sa leen loo xam ne ci maanaam li ñuy teg ci am na leneen loo xam ci biir lu compté wu ak euh, téléphone donc euh, li ci am solo moom mooy Diourbel euh, ñu ngi jël maanaam comme def ci parce que dañ nekk pour di bawal donc ñu sensibiliser ko donc bawal ñu ci ñaar ñun loolu ñu ngi si wut quoi buñ demee ba nga xam ne yëfu Diourbel la loolu événement boo xam ne xam nga pérenniser ko dara mu yóbbu moom nga def ko benn yoon day métti métti ñaar nga def ko ñaar donc war na yaakaar nañ ne dina wéy li ñu ci tamit di ñu man sama ñu seetloo ko en fait day bokk ci même critère de sélection yi pour combattant yi ñu koy gagné en général bu fekkul nekk bu ñu Donc, du motif, on peut C'est vrai que. des moom mooy élèves yi nekk comme ni ma la ko waxee ñoom ñoo ko tuddee def ñenn bon waaw mën nañ yeesu ci parce que compétition bi def cent cinquante personnes yombul quoi nga def ko ci benn boo amee moyen ak réceptif loolu mooy suñu problème événement euh, bu ñuy wax tool yi peut-être événement mais ba léegi est-ce que yéen defoon yeneen partenaire bi soo paree rek yow. waaw loolu aussi mooy li mu def dañuy yéex a jóg daal man. mais dañuy yéex a jóg souvent xam nga pour nga sponsor dañ la gën a dale quoi. te il faut que aussi am na dañ koy mën a dox level si level si que je compte vous marquer. Donc, euh, c'est une première encore. Même nous, comme ça, on va pas autant, donc nous devons découvrir. Ensuite, on a médaille aussi, même, euh, même, ça va être médiatisé dans tous les cas. Ok. Vous voulez une compétition, vous avez 150 000 combattants. Ça, c'est. Euh, deux mois, programme de waaw suba gi la ñuy def euh, éliminatoire yi. waaw bu defee suba gi éliminatoire yi ba peut-être 14 heures 15 heures ñu arrêté ñu def pause après yaakaar euh, naa de Diarra dégg ngeen loolu loolu mooy open bi bawal toll ci huitième édition bi nga xam ne boobu ba euh, combattant yi fu nekk ñëw di tiire yaakaar naa ne comme ni ko Sall si waxee léegi affaire bi suñu affaire la ñu bawal ñoo ko moom c' est une opportunité vraiment pour tamit ñu vulgariser suñu région bi suñu dëkk bi nga xam ne mais Sall si yaakaar naa ba ñu ko ci ñu doomu dëkk bi ñu mën merci kooku moo tax édition bi moom tamit mooy organisation bi yëpp ci même métier moo tax ñoo ngi fi ci Dozo bi euh, comme gars yi xamee ñi nga xamante ne ñoo ci doon jàpp ñu gën cee jàpp ñi nga xamante ne nii tamit moom ba léegi ñoom ci loolu ñoo ren euh, ñu gën a dugal seen loxo te xam na comme ni moom ñëpp ko moom Diourbel la ko moom kon ñun ñëpp nañ ko xaar le 17 février 2017 au de Verdure la ñuy wax kion c'est les principes de base maanaam ay technique de base yoo xamante ne nii il faut que l'apprenant kiy jàng karaté foog mu am base boobu su ko amee nag moo koy mën a permettre buy jóg ah di wut ay ceinture booba ñu nekk maître effectivement mu am ay position yu solide donc loolu mënoo nekk karaté te effectivement taxawaay bi loolu la ñuy wax taxawaay maanaam bu amee lu ñuy mën ko misaale mooy fondation c'est-à-dire soo buggee def étage tant que amoo fondation bu baax mais du sotti donc ça ce les techniques de base c'est-à-dire que nga nekk combattant nga nekk kuy def kata wala nga nekk maître walla nga nekk élève c'est-à-dire que lii bu baaxul da lay topp moo tax il est important ñuy insister sur véritablement ces techniques de base la pour que ñu doter ah l'apprenti kiy jàng mu am ay dispositions yu ko mën a permettre mu nekk un bon Ouais. Mais là aussi, vous me donnez l'occasion de remercier mon maître. Ça, vraiment, je me dois de, de témoigner aux yeux de tout le monde. Parce que je me rappelle, c'est vrai que moi, je me dis deuxièmement, euh, j'ai appris le karaté à l'université, mais moi, moi, je Donc si j'en suis arrivé aussi à ce stade-là, je lui dois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui symbolise une icône hein, du Je pense que l'autre aussi, mu nekk fierté Diourbel tamit parce que ku dem ba nekk arbitre international je pense que loolu quand même lu am solo et on va vers un événement je peux même dire un événement même nekkatul événement mais dañ ko inscrire maintenant dans le calendrier du Diourbel nekk vraiment journée bu am solo muy l'Open de Diourbel et là vraiment ñu souhaiter la bienvenue à tous les combattants à tout à toute l'équipe fédérale ah <laughs> Diourbellois et tout pour que ñu jàpp ci un grand merci et un grand coucou à notre frère et ami Nour